bisimila ci xibaar dëgg bëccëg yi li ci gën fas amul kenn koo xam ne vaccin ak AstraZeneca na bakkanam di ay leexale ministère bu santé yokku ci ne kon euh, ci jamono jile xalaatuñu benn yoon dakkal lii di vaccin bii di AstraZeneca ay médicament yoo xam ne fraude la ñu teg leen loxo ca Padoa directeur bu médicament ca ministère de la santé professeur Yérim Mbagnick Diop ne xeex wi ngir jëlee fi ne moom daal di des

yene kay El Hadj san gay tarikh Ramadan ci njeextalu xibaari ak nafisatu sirla ci technique bi Aliou Badji ak pou assalamu alaykum Seydou nouba mbokk yi jangane jëf dal len jam vaccin bi di AstraZeneca batay amul kenn ko xamne rotal na bakkanam fii ci Sénégal ministère bu santé nag di weddi xibaar boobee nga xam ne dafa am tey ci euh, benn ëttu euh, tas xibaar fii ci euh, Sénégal daal di wax ne ñett. ñoo ñak seeni bakkan ci vaccin docteur Mamadou ndjay di propre ministère de la santé bëgg yëfi lèr ci jamono jilé kenn du dakkal boobule vaccin déglu ko. ministère de la santé et l'action sociale mu ngi leen di xamal bi campagne vaccination bi doré ba Nyaku. ñi jot ñakku ci biir réew mi ñu ngi toll ci témèr ak juroom ñaar fukk ak juroom ñeenti yu toftol juroom ñeenti témèr ministère de la santé et l'action sociale mu ngi leen di xamal tamit bi ñu tàmbalee ñàkku ba légui amul kenn ku génn aduna fekk ci ñakku bi la ko jëlé yaa xam ne ñàkku Sinopharm bi wala ñàkku AstraZeneca ñun nag ñu ngi ciy sant yàlla di ci dolli sant yàlla bu baax a baax vaccin amul kenn ki nga xam ne génn na ci àdduna fekk ci vaccin bi la ko jëlee ministère la santé et l'action sociale mu ngi lu ñaax askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi surtout ñi nga xam ne ñoom la ñu jagleel ñàkk yi nañu wéy di continuer di ñàkku di dem ci bërëbu ñàkkukaay yi bu ñàkkoo ba pare denc seen carte bañ a fàtte seen rendez-vous ngir tollante bi te di wéy di sàmmonte ak digle yi ñuy joxe bés bu nekk di leen wax na ngeen aar seen bopp aar seen njaboot aarale askan bi. lu jëm ci tolluwaayu mbas mi tey jilee am nañu juróom fukk juróom-ñett ci ay cas positif ñaar fukki cas benn di ay cas contact fanweer juróom-ñaar di ay cas communautaire man di ay cas yoo xam ne kenn xamuñ euh, fu ñu jógee ñaar ñàkk seen i bakkan. fukki kaa ak juróom-benn ji ay cas yu doy waar maanaam yi ay cas yu grave juróom-benn fukk ak juróom-ñaar di ay cas euh, daal yoo xam ne dañ ko amoon waaye dañoo mujjee wër ñu waxtaanee nag directeur bu médicament ca pharmacie euh, bu ministère de la santé moom nag àdduna jëmale ci fraude maanaam ci ay médicament yoo xam ne fraude la ñu teg leen loxo foofe ca Padoa moom mi nag di euh, professeur Yérim Mbagnick Diop dafa jàpp ne xeex mi moom moo dal des ci ni nu mel ma xeex lépp yëm ci trafic ay médicament mu sax tamit ni mel faw ñu xoolaat ko bu baax a baax ñu déglu tey Yërim ak Diomb moo nekkoon tey ganu RFM matin ak Georges Dere Diop. jàngat bi daal ñett la mooy est-ce que ñun ñii ni ñu toll DPM est-ce que. direction de la pharmacie du médicament est-ce que sur le plan institutionnel nii mu mel nii est-ce que am na doole pour xeex mbir mi bu baax parce que man inspecteurs yi suñu inspecteurs yi mënuñu mënuñu def euh, police ils sont obligés de travailler avec la police mënuñu tëj benn boutique dañuy constater rek donc kon war nañ xol ancrage institutionnel gëna dolel DPM avec ses inspecteurs pour ñu mëna gëna xarañ ci liggéey bi ensuite le plan de la loi également manam yoon ci walu yoon war nañ xoolaat suñu texte yi maanaam texte réglementaire yi nga xamné ñoy ñoy gérer li ñu ooyee dispositifs médicaux manam seringue yeeg gants yeeg les les ay jumtuwaay yu ñuy dugal ci biir yaram ñuy opérer comme protéger ak yëpp ci dispositif dafa bëri mais réglementation mi ngi sooxe am na lu muy sooxe am na lu siy sooxe loolu loolu tamit ñu ngi koy càmbar pour tëralaat ko tëralin bu gën a jaar yoon pour que problème yu mel ni mu leer si bopp ñëpp xam kan moo ko war a dugal Sénégal kan moo ko war a jaay ñu leeral ko parce que fu mu ne ñëppay jaay ñëppay jaay xamewu kenn même suñu mbokk docteur yi sax yenn saa ñaam seen armoire bi benn affaire boo xam ne am na ay ay dispositifs médicaux yoo xam ne may wuñ ko donc loolu yëpp dañ ko war a réglementer donc te loolu ñu ngi si dañ doon xaar un peu benn règlement communautaire UEMOA mais Covid bi moo tax mu xaw a yéex. technologie est-ce que euh, fi jamono yi ñu toll est-ce que amul xerañteef boo xam ne war nañ ko mën di si garab yi ak nu muy bindoo pour su duggee si Sénégal ñu xàmmee ko mun koo marqué. di ko topp fu mu mënta jaar ñu xam ko. des ba tey ci wàllu wérgu yaram wutal yi hôpital régional bu Kolda foofu nag ak bëri jafe-jafe bëri na loo xam ne amu fa lu ci mel ni gynécologue amu fa cardiologue naka loonu ak tam loo xam ne daanaka doxatul fa lu ci mel ni scanner ba ak tamit sant de dialyse ba foofu tamit doxatul di loo xam ne nag mer noonu lool ña fay liggéeyee tey ñu doon waxtaan a ak taskatu xibaar yi Abdoulaye Diallo hôpital régional bu Kolda dafa di ab këru docteur bi gën a feebar ka aji wopp yi fay ñëw faju ci kàddu liggéeykat ya ca bile këru docteur yi jàkkaarloo woon ak taskat xibaar yi ngir fësal seeni naxar Alassane Balo moo yor seeni kàddu hôpital bi ci boppam moo feebar feebar bi mooy lan mooy que hôpital bi actuellement fu mu nekk dañu am problème gynécologue amuñu ko amoon nañu gynécologue bu nekkoon fii mu décédé ñu remplacé keneen kooku accidenté ba léegi amatuñu gynécologue tey pédiatre benn pédiatre la am hôpital régional benn pédiatre boo xam depuis deux ans appareil bi centre de dialyse biñu tabax depuis ay at te doxul ba légui bokana Alassane Ballo. hôpital régional am na dialyse boo xam matériel yëpp ñu ngi fi médecins ñu ngi fi ñi nga xamné ñom ñoo wara liggéey ci dialyse bi lepp matériel yëpp indi nañ ko tek nañ ko mais ba légui uppi ñu dialyse té te dialyse bi waroon na ubbi depuis 2020 la waron tiji tijji dialyse administration hôpital bi moo si indi ay leeral Jibril Yan Sané mooy jiite bile këru docteur. ki ñu mujjé affecté moy semaine passée docteur Aw moy 4e gynécologue bu ñu mujjé affecté mais fi zone bi moy zone dit difficile ay euh, bërëb la yo xamné nit yi suñ leen affecté en général duñu dé dee ñëw donc lolu moy euh, difficulté yi ñuy jankontel ci walu personnel bi bari na fi ci Kolda ay aji wop yi bëggu ta jëm ci hôpital régional bu Kolda ngir jafé jafé yi fa askan wi di jankontel ngir faju RFM Kolda Abdoulaye Diallo. pour man RFM moy radio bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM. fan la ñu war a mën a jaare ba indi saafara ca université bu ndakaaru gannaaw euh, li ñu fa nemmeeku ci ay tension conseil restreint bu assemblée bu UCAD nag ci jamono ji lañu euh, la ñu bëgg mooy daal dafa jële lii di amicalu étudiants yi waaye tamit xoolal bu baax a baax lii di système euh, codification yi waaye nag kii di médiateur di kiy dox jàmm foofee nag dafa jàpp ne ba ñu joxe lii di néeg yi nañ ko daal def ci loo xam ne dafay jaar yoon maanaam ñi ko yellool dal di jël yooyu la nekk kon dal nañ teg yëf yi ci wàllu pédagogie ak critères yu leer nañ professeur Ndiasse Diop ci téléphone beeg Jodita Diop. li ñu bëgg mooy ñu dem ba mu am benn synergie entre COUD ak campus pédagogique pour que li nga xam ne nii moo indi coow li muy néeg yi nga xam ne nii dañ ko bàyyi ak ay amical ñu koy séddalee ci seen faculté respective ñu seet daal beneen anam yoo xam ne nii noonu lañ koy defee ba nga xam ne nii daanaka sax dootul jar ñuy jaar ci ay amical pour séddale chambre yi dañuy jaar rek ci liste yi nga xam ne nii moo jógee campus pédagogique yi wane ni étudiants yii kat ñoo am droit ci ay néeg ñu seet néeg yi na mu toll ñu seet ci ñi nga xam ne nii ñoo jàll seen examen wala ñooy door dugg te am résultat yu baax ci baccalauréat ñu jox leen néeg yi waaye teewul itam ñu yaakaar ne ñi nga xam ne ni ay handicapé lañu dañ leen war a jagleel quota yu nga xam ne nii du doon quota yuy wéeru ci mérite ndax dañ leen di dimbali ñoom itam pour ñu mën a jàng comme ñëpp loolu daal mooy li nga xam ne nii yaakaar nañ ni moo mën a indiwaat jàmp ci université te wax dëgg yàlla du neex benn parent étudiant nga dégg ni sa doom dafa gaañu université ndax dafa am ay xëccoo yu amoon te xëccoo yooyu yëpp du ci ëpp mi ngi jóge ci codification yi ndax codification yi moo tax étudiants yu bari yoo xam ne nii bëgg nañoo dugg ci amicale yi dañu gis ni daal codification yooyu ak yeneen ak yeneen euh, yëf yu nga xam ne nii boo nekkee amicale dañ la président amicale wala nga bokk ci commission sociale dañ la koy jagleel mu doon yëf yu nga xam ni daal ñu bari dañ ci teg seen bët ba mu jaral leen sax ñu teg ci seen bakkan di xeex ngir jiite lool chantier yi ni mu tardé ci wàllu université yi waaye tamit euh, texte yi daal jëm ci ñu ko war a organiser ak université Amadou Makhtar Mbow ñu ko war a tëralee ci wàllu woowee daal ñu jàpp ne ñaari poñ yoo xam ne euh, faw ñu taxaw si seen di syndicat autonome bu enseignement supérieur bu SAES nag euh, li mu bëgg mooy nguur gi baral daal di taxaw yëf yooyu daal ngir mu daal di ñoŋ ndax université Amadou Makhtar mbaw dafa daal daal doon jamono joo xam ne daal. mënatul daal euh, di euh, contenir maanaam di euh, nangu ay étudiants yoo xam ne daal ñu fa ñëwee dañ koy na lay jafe-jafe ndax taxu ko ree noonu kii di Serigne Fallou Gueye du ñàkk ñu amar ko ci suñu xibaar yu dégmal ak kii di Salimata Aw mu ñu fa toggaloon Euh, ñi nag nekk ca classe communautaire préscolaire ca Sédhiou ñoom tamit euh, wane seen naqar li ñu nag euh, mënul nangu mooy anam yu doy waar ñu jàngee ak yi ñu sax liggéeyee ñu nag bëgg ñu dal di ko soppi ñu tamit bëgg ñu gën leen a former maanaam tàggal bu baax a baax ngir ñu mën a dem yegg foofu ca fonction publique ñu bëgg tamit ab quota ci wàllu recrutement ci juróomi junni enseignants yi ñu wax daal ki njiitam dina ko daal di jël ñu déglu leexal fi ñu ne foofu ca Sédhiou Max Kamfani ñi ngi ci liggéey bi daanaka fukki at ci ñu bare ci ñoom nekk ci classe communautaire préscolaire intervenant classe communautaire yi ICC nu leen di duppee amuñu salaire am it ay jafe-jafe jot ci ndàmpaay yu leen war a jagleel at gu nekk ICC yooyu toll ci ñaari téeméer ak fanweer ak ñett ci diwaan bi gannaaw bu ñu nekk ci jafe-jafe yooyu at yooyu yëpp génn ni bokk ci kamb bu ñu nekkoon fësal seeni nekkin Souleymane Konté moo ji dé ìṣẹ̀ṣe usage o. fún kí at

seen wàll si junni ay jàngalekat ñu fas yéene recruter ci weeru mai bu ñu dëgmal nii. son excellence monsieur Macky Sall comme ni dafa ne dina recruter des enseignants au nombre de cinq mille bëggoon nañu vraiment moom tamit mu xalaat ñu ñu jëlee ñu dugal ñu vraiment si loo boobu afin que ñu mën a liggéeyloo suñu ndaw yi pour suñu ëllëg. ñaari téeméer ak fanweer ak ñetti ICC yu féetee ci diwaanu Sédhiou te ñi tas leen ci téeméer ak fukk ak juróomi ñetti classe communautaire préscolaire yi di sakku nekk. nekkin bu war it ñu bàyyi leen gët ngir ñu wëyal di servir nation bi ci dignité Max Euclide Kamfani ci Sédhiou ngir RFM. ni mu amee ci njàngum tubaab noonee la nguur gi bëgg mu amee ci euh, daara yi muy dugal fa lii di enseignement préscolaire muy nag loo xam ne lu bees la ci wàllu njàngale mi mu nag bëgg daal euh, lépp daal lu jëm ci bañ a dimbal yooyu lee daara ci wàll woowu mu daal di fi jóge ci système bi Cheikh Diop inspecteur d'enseignement euh, élémentaire ci micro bi Ibrahima Diamé. tëgg xale mébét la rek. mais nan ngay jaar pour tëgg ko mën naa nekk ay yoon yu wuute. mais li ci am solo rek mooy yoon wu ci nekk rek.

Le ministère de l'éducation nationale à travers le programme d'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation dafa wax ni équité dafa war a la ab réalité équité moom mooy inclusion d'abord mooy ñëpp yem pour ñëpp yem faaw nga fexé bu ñom ñu am ñu yemee tegal ñëpp am njàng comme nag jëlee dañoo soxé ñooñu la ñu dimbali parce que bo dee yuuxu da ngay dem fi nga xamante fa nga yaakaare wollu benn waxtu teg na fukki simili ak ñett fi ci RFM pour man RFM rajo bi jaamu seen soxla. dañu waxtaanee xëy ñeel ndaw ñi fii ci Sénégal ca Thiès moom. ñu ngay euh, ut ay buntu euh, yu bëri sax foofee ndax lu toll ci junni dawalkatu moto Jakarta dañ leen a tàggat ngir ñoom permis de conduire ñeneen tamit jot nañu financement ngir dal ñu def euh, yenn activités yi ñu wax activité génératrice de revenu ministère bu artisanat ak secteur informel nag amal lancement boobule programme foofee ca Thiès Cheikh Anta Diop. fexe tey jii ba ñi nga xamante ni ñoom ñooy dawal taxi moto Jakarta. nekk fii ci diwaanu Thiès ñoom ñëpp ñu am ay permis de conduire ngir wàññi accident yi Samba Kumba Samb moom moo jiite dawalkatu moto Jakarta yi nekk fii ci diwaanu Thiès. kon dañuy ñaan monsieur le ministre lii nga xam ne nii moom nga xam ne nii moom nga ma demandé mu ni ma phase test la parce que waa Thiès bi ñu nii yaa koy joxe ku ci nekk tey jii toppatoo nañ seen seen photocopie calante toppatoo nañ seen seen groupe ko indi ko kon ñii engagé wu nañ pour liggéey bi Sénégal xool xam ne demuñu ci biir ki nga xamante ne nag daanaka moom moo sooke mbir mi di Pape Amadou Ndiaye di ministre de l' artisanat et du secteur informel moom gis ne programme la boo xamante ne nësëx nañu ko ngir dawalkatu jakarta yi ñëpp mën cee jote wax na dawalkati jakarta yi nekk fii ci diwaanu Thiès dina leen dugal ci ay coopérative ngir ñu mën a am ay dëkkuwaay. projet 100000 logements yooyu président daal di ne kon naa ko jël garantie boobu nga xam ne moo leen të man maa koy joxe pour yéen tamit ngeen mën a am kër ëllëg ngeen mën a jug fenn ngeen am foo leen mën a suturloo yóbbu fa seen njaboot seeni kees yooyu wooyu nekk seen garantie pour ngeen mën a am accès au financement muy emploi alternatif yi ngeen mën koo am loolee tax nag ndawu Cees yi rawatina dawalkatu jakataay yi ñoom ñëpp nee nañu lii de lu baax la ci ñoom te it nee nañ dinañ jàpp ci li ñu am ba keroog yàlla di leen ubbil yeneen i xéewal RFM Thiès Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop noonu la amee ca Mbuur ay ndaw tamit foofu dañ leen tàggat ci Euh, yenn wàll yi lu ci mel ni pétrole gaz aéroportuaire ak yeneen di secteur dal yoo xam ne am nañu ëllëg lool fi ci Sénégal bu sukkandikoo ci ñi doon amal yooyu le tàggat euh, ndax dal jamono jile euh, daanaka lépp lu ñu soxla ci wàllu jumtuwaay ma nga tegu ca département ba Cheikh Issa Sall moom mooy président mouvement AMDM doon tamit directeur général bu agence développement municipal di ADM ñu déglu ko ci micro bi Abdourahmane Diallo. donc jeunes yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey pour président Macky Sall yépp ci département bi ñëpp ñu ànd ak ñoom. pour won leen yan possibilité ak opportunité ñëw am si gaz ak pétrole bi nga xam ne moom moo fi war a ñëw te Sangomar nekk fii sunu wet rek à cent kilomètres ñu xam ne pooru Ndaayaan ngi fii soriwul aéroport baa ngi fi les deux stations balnéaires bu Saly ak bu Pointe Sarène ñu ngi fi zone industrielle bu Sandiara mu ngi fi Mbour comme ni ma ko waxee léegi dafa xew département de Mbour dafa xew donc jeunesse am bi war nañ jóg taxaw jàppante di sakku xam-xam nag ak di namat seen xam-xam te loolu ci formation yu mel nii lañ ko may def pour que opportunité yooyu ñu mën ko saisir pour seen bopp saisir que pour seen njaboot saisir que pour seen dëkk saisir que pour département mais saisir également pour andi indi seen contribution ci développement wu Sénégal bi nga xam ne président Macky Sall amorcé na ko à travers le plan Sénégal émergent donc fu lii benn pàcc la rek ci yoon woowu dina amaat yeneen i gisee yeneen i formation pour gën a approfondir yi nga xam ne nii def nañ ko fexe ba taxaw njaboot yi nga xam ne amuñu doole conseil national euh, développement nutrition euh, jot na daal amal yenn test yi jëm daal ci taxaw ni nu mel ñu koy wax résilience des chocs euh, ci njaboot yooyu nga xam ne amuñu doole waral nag ba conseil ba daal dem foofe ca commune bu Diya ca Saloum ndax euh, yóbbu fa ndimbal lu ci mel ne ay xar jébal ko ay boromi kër ñu deglu kii di Daouda Ndaw moom mooy directeur boobule programme ci micro beeg Ibrahima Diamé. ñu ci jublu rek ndax dañoo xam ni njariñu jur ci euh, ci njaboot gi tu fii ci àll bi boo ci jox lu mat fukki ganaar ak ñaari seq wala nga jox ko lu mat ñaar ba ñetti xar wala bëy bis bu jafe-jafe amee lu mel ni li jot euh, Euh, li ñuy dund fi nekk nii muy feebar boobu dugg ci ñun nga xamante ni liggéey wàññeeku na jafe-jafe gën naa metti famille bu ci amoon jur am nga ci tey mën nga cee jël tey daal di jaay pour mën a faj sa soxla mën nga ci yee sa doom aussi bu feebaree nga mën cee jël jaay pour mën a yóbbu hôpital donc loolu moo tax ñu naan euh,

continuer di liggéey ci projet bi nga xamante ne loolu moo nekkoon objectif. RFM bitim réew. dalal Anna Rocha maa ngi lay nuyu fay bu baax a baax euh, Seydou Nourou. bisimilah. xibaaru biti réew yi ak euh, benn jot ni euh, cérémonie bi ñu euh, Sidi Ibrahim Ould Sidati coordination des mouvement de l'Azawad cérémonie bi amal ni base militaire bu Senou néew bi Tombouctou Sidi Ibrahim Ould Sidati décoré nañ vice-président de la transition colonel Assimi Goïta Tabonoko officier de l'ordre national du euh, Mali du Mali euh, fàttali rek talaata ji weesu lañ ko faat ca Bamako. dañuy faral di wax Cap Vert deuk waaye man damay bañ léegi dala mën na sénégalaise nga waaye dem Cap Vert rek ndax campagne électorale ba jeex na fa niki aljuma àjjuma ca minuit waaw euh, lu euh, tolloog euh, Seydou 393 000 ci ay Cap-Verdiens ñoo war a dem wote ji ni dimanche ji ngir daal di fal ay député yu bees ci lu tolloog juróom-benni yi candidat yoo xamante ne ñu ngi xëccu siège yi mu nar a doon nag beneen jàkkaarloo bu metti diggante ñaari parti ci gën a fës foofee ca cap di MPD mouvement pour la démocratie bi nga xamante ne moo toog jamono yi ci nguur gi ak premier ministre bi waye itam diganté sen diganté kon ak parti euh, PAICV di parti africain pour l'indépendance euh, du euh, Cap-Vert ñoom seen bébét jamono yi moy jël juróom-ñaar fukk ak ñaari siège yi nga xamante ne moom moo leen di may majorité ba ñu mëna changer kon li di premier ministre bi ñi nga xamante ne nag mooy PAICV fii ci euh, Sénégal ñu ngi doon amal ab jano ak euh, taskatu xibaar yi seen candidat euh, di Gisèle Lopez di Almeida leen ci déglu ci jokkam ak Jomarone Gisèle Lopez d'Almeida s'était engagée depuis 2016. man Gisèle d'Almeida sama engagement manam sama xex 2016 ba léegi moy fexé ba doomu Cap Vert yi juddoo Sénégal yépp am nationalité donte sax ci opposition bi la bok, wayé sama programme li ci jitu dal moy lolu. ndax fi ci Sénégal ak yeneeni i réew sax ci Afrique dañuy gis né doomu Cap Vert yi dañuy dem ba xam sax fuñu dëkk benn nationalité duñ ko am té lolu nak du dëgg du yoon Lolu mo waral ba may def sama kéem katan ngir fexé dajalé doomu Cap Vert yépp ngir ñu laaj loolee nga xamante ne droit la yenn yi dafay dem sax ba niroog exclusion institutionnelle institution bi moo leen boddi euh, ci beneen pàcc bi euh, Seyd Nourou mhm. ki di Jeanne-Marie euh, Gomis Seck moom mooy candidatu MPD di mouvement pour la démocratie kon moom jàpp ne ni mhm. bokk na ci porte étendardu communauté sénégalo cap verdienne bi kon bëgg jël rek expérience bi nga xamante ne moom la am ci wàllu système bancaire bi daal di ko

mais Nalen naa leen ouverture campagne monument de la renaissance pour won aduna bi yeb parce que xamoon naa vidéo dina dem won aduna bi yeb que ñun fi Sénégal am nañu lu rëy monument de la renaissance nga xamné amul fenn té monument de la renaissance pour man dafa am signification unité africaine renaissance ñu judduwaat Baba bi fa nek day woné que ki nek ci kanam ku ñu nar fal dimanche ku ngandé la ku téye la ki nga xam ne dafa bugg Afrique dafa bugg Cap Vert dafa bugg a dafa bugg unité africaine loolu moo tax ñu def ouverture bi foofu te vidéo buñ fa def dem na ñëpp gis nañ ko ci àdduna bi yëpp donc tey man dama yaakaar ni man Jeanne Marie Reine Gomis man sama bopp man maa teg sama bopp ambassadrice Sénégal dans la diaspora ambassadrice sénégalo cap fu ñu mun a défendre Sénégal dinaa fa taxaw fu ñu nar a défendre Cap Vert dinaa fa taxaw maa ngi leen Sénégal parce que Cap Verdien boo Sénégal xam ko Sénégal seen xol yàlla may ñu ndam ñu Sénégal. Ana ah la élection yi euh, dimanche bii la ci euh, Dakar euh, centre de vote mm. bokk na ci ambassade itam mairie Baobab mm. ak maison de la culture man non non. Ah.

xamante mot moo représenté les démocrates di Corentin Koué, euh, ci euh, après déclaration bi mu def ni ki ci président Talon nee na mu ngi nakarlu bu baax baax tension bi rawatina firnde bi nga xamante ne moom la ci euh, campagne électorale bi Fofé, ca ca kon opposition bi amne am na déposé ngir déposer recours bu ko neexee. ñu wutali Brésil Fofé na cour suprême moom toppetul de di Lula dara. Dédette cour suprême nga xamante mom moy euh, kon haute autorité judiciaire bi fofé ci euh, Brésil kon dal dina dëggal ni euh, ki di Lula mën na léegi xocco ci jogante bi nga war nañ ko amal ci atum 2022 élection présidentielle bi ci kanam ci digantem ak Jair Bolsonaro donté ne nak ki di Lula waxul né mom de manière officielle ne bëgg na candidat ci yoyulé les élections mom lu mu wax modi euh, Par na ngir wat ci bir politique bi euh, bu peuple bi na ci ñu Afrique euh, rawatina Guinée Bissau ci semaine bi ñom jot vaccin anti Covid 19 mu di loo mungi bokuti partenariat bi di initiative COVAX Yeneni ak Noa Mankali ci cérémonie bu mu doon jot dose yooyu docteur Maguida Robal loo xamante ni mooy haut commissaire bu Covid dafa déclaré woon mu ne plan national bu vaccination contre Covid 19 bu mu commencé woon ci ñaar fan ci ay avril bu ñu nekk ni bobu day amat doole ngir vaccin yu ñu jot. ak remise xamante moom la ñu nekk di seede tey mun nañ carte suñu doole ci vaccin yi région yi te tamit dañoo mun a améliorer suñu taux de couverture ci ñu xamante ñoo am risque. Robalo moo invité bépp doom ne

ka mom la am comme Covid 19 te ki la faatu juróom-benn fukk ak juróom-benn nit ñoo ci faatu nu waa Menkeli Bissau RFM. jërëjëf euh, Noa Seydou Nourou fii lu ñu yem ci xibaar ñeel. jaajëf bu baax ana baax. Ah bitim réew rew jërëjëf. RFM Sport. dalal Cheikh Tidiane Diagne Cheikh maa ngi la nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Seydou Nourou. ëllëg incha allah dinañu xoolaat bu baax a baax lii di calendrier bu jëm ci championnat national bu football fii Sénégal. waaw donte jamono gi sax dañoo dal di bër ngir mën a noppaliku waaye dañ see bëgg a profité daal daal di dabe match yi nga xamante ne naroon nañ ko amal ci saison bi te mujj ñu ko amal te boo seetee sax ñaari équipe la gën a concerné moo di jaraaf ak ñi di waa Tëngéej FC ñaari équipe yooyu lii tamit ñoom ñoo te teewal Sénégal ci compétition africaine yi waaye nag ëllëg dañu daal di sóobu ci mbir yi ci stade Ngalandou Diouf bu Tëngéej foofu euh, diggante Tëngéej FC lay daal di doon ak AS Douanes ci bu 17h jotee AS Douanes jamono gi moom moo féetee ci place bu njëkk bi ci classement bu Ligue 1 bi googule waxtu ci tamit ci stade Amadou Barry bu Guédiawaye jaraaf euh, dana fa taseek ñi di waa stade de euh, Mbour ñu daal di jublu wax ci leneen ay match tamit ñu leen di xaar euh, tay ci ngone ci championnat fofu ci Europe. wa dañ koy daal di door rek championnat ba Angleterre ñom ñu ngi seen 32e journée tay ci ngone 19h Everton fété ci 8e place bi dana tassek Tottenham fété ci 7e place bi ñom ñaar nak ñetti poñ daal di dox seen euh, diggante ci France yi tamit foofu danañ amal jongante ñeel seen championnat ni tay ji ci ngone ci bu 19h jotee Lille mi nga xam mom mo fété ci place bu ñëk bi dana tassek ñi di Montpellier Lille rawee ñetti poñ Paris Saint-Germain mi nga xamante ni dimanche inshallah allah danañ daal di taseek ñi di waa Saint-Etienne gannaaw ci walu demi-finale Ligue des champions bobok ak nak ñing ñu ngi koy waxtaani euh, sen jongante seen diggante ak Manchester City ci walu demi-finale ci njeexitalu weeru avril bi lañ koy daldi amal ci match aller bi euh, lool nak euh, amna na bi nga xamanteni ki di Pape Lay di entraîneur voltigeur Châteaubriand national 2 foofu la France yëkëti na ci ay cadeau ñu déglu ko ci micro Georges Déthié Diop. PSG am nañ chance ren chance bu bari mais dafa bari facteur yu jouer facteur yu jouer mooy que tant yi gis nañ ne dañoo bëri woon ay blessés et donc bu ñu récupéré seen na ñooñu gaañu woon yëpp suñu maintenir ba nga xam ne ñi fi nekk ni dara jotu leen te ils sont en bon état yaakaar naa ne am nañ am nañ chance bu rëy ren ji parce que dañoo am ay joueurs d'exception boo amee Neymar am Mbappé c'est des joueurs yoo xamante ni dañoo am niveau Ballon d'Or et puis comme cette année muy Ronaldo muy euh, Messi ñoom ñëpp kay nekku fi am naa ne pour ñoom dañoo am mission wax nekk ren ji mooy seen chance pour ñu gagner Ballon d'Or bi et puis li ma doon wax tam mooy euh, configuration équipe yi boo xoolee ñi qualifié ñeenti équipe yi qualifié ñu ci bëri mooy li ñuy wax équipe de transition leen c'est-à-dire que mën nañ laa xaar te buñ la xaaree pare mën la contre c'est-à-dire que c'est des dañoo gaaw Mbappé il va il va très vite dafa gaaw et puis les am ay joueurs yoo xam ne mën nañoo génne bal bi c'est-à-dire que boo leen di pressé tam pour ñoom du dara ñu génne bal bi te buñ ko génnee dañ lay mettre en difficulté comme demi-finale bi boo xoolee euh, Manchester City c'est une équipe boo xamante ne bii ci day yéeg ci kaw dafa bëgg possession bal bi la bëgg moom du la xaar donc match bu intéressant la na la nekk te boo xoolee ay Real ak yooyu ñoom dañoo tàmm di gagner donc loolu mooy différence bi est-ce que PSG musul gagné coupe est-ce que du loolu dina euh, perturber un moment ou un autre ça va être intéressant mais avec les joueurs qu'ils ont je yi Amener yor chance de ren pour pour gagner euh, Ligue des Champions. mi non c'est Seydou Nourou Ba euh, loolu des di chance Paris Saint-Germain mi nga xam te ñu ko doon xayma gannaaw ba ñu nar ñi Manchester City ci le demi-finale Ligue des Champions Manchester City gogo de sax Nyom ëllëg danañ daal di amal jongante seen diggante ak Chelsea. Mm. mën nañ ko tuddee choc ndax équipe yi dañ daal di ci wàllu demi-finale FA Cup match bi ci bu 16h30 jotee ëllëg di samedi lañ koy daldi amal geneen demi-finale bi nak 17h30 dimanche diggante Leicester ak Southampton ci Espagne nom dañuy amal semi finale Coupe du Roi euh, niki ki ëllëg euh, di euh, samedi 19h30 diggante Bilbao lay daldi di doon ak ñi FC Barcelone Bundesliga modi championnat bu Allemagne 29e journée tay jii ci ngoon danañ ko daldi 18h30 Leipzig mo ngi fiy tey si ñaari place bi dana tase ñi Leipzig jamono gi juroomi poñ daal di dox ci mak Bayern Munich fété ci bop gi Dortmund Mamoun moom mi nga xamante ni bokkoon na ci ki nga xamante ni euh, ñoom ñu ngi leen doon séntu ngir ñu daal di kon bokk jël championnat bi fi toll ni nag ñu ngi féetee ci juróomeelu place bi ñoom euh, kon bokk alaaji mhm. fii lañ koy daal di rek di jaajëfal sama sama jigéen kooku nga xamante sama xarit la mhm. jërëjëf Seydou Ba maa ngi lay siyaar moom mooy na bàyyi ma noppi <laughs> jaajëf Cheikh Tidiane savon de Marseille créole Sengam Opalia à Cabirex. ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. dañ ci ànd ak El Hadj Assane Gueye. observateur lu jëm ci ñàkk yeeg ak xeex beeg jàngoro coronavirus xibaar yebu ci am ba xëy joxe ko tey du yu neex ndax mu ne ci Sénégal xaymaa gum nañ fi ñett ñu mu faat juróom fukk ak ñett yu mu yóbbu loppitaal juróom-ñeent yu ne ci cas grave lii quotidien ne xeex ba nag ma ngay gën a lëj di compliqué mu ne su soo yooyu bakkan yu ci wàllu ñàkk bi ñu ne yéenekaay bi nee na ndakaaru ci boppam la yeneen i xeeti virus ne juux ay virus yu suppeku di six autres mu mel ni kon tey la wàllu gën ay masque yek gel yek fagaru gi université bi ndakaaru it fay jaar ci xal yi mo xam fa nu duppee Cheikh wala ci corniche bi faaw ngay fagaru ndax étudiant yi ñom fu nu meree di jor ay ponkali doj mo waral le quotidien Bobe bërëb ñu duppee bërëb bu xam-xam di temple du savoir Yene kay bi ne léegi kay bërëbëb fitna la li waral Nak meru étudiant yi moy kilifa yi ju kawé ji ño dogal tasum amical étudiant, yi teju campus bi naka campus bi di Fanou de ak fanuy lekkee le quotidien ne étudiant yi xotti nañu dogal assemblée de l'université jël kudd lankal na assemblée bi teju campus bi ndax nee amu ci sañ-sañ géeg mënin gi le soleil ne assemblée de l'université géneen nak tas amical étudiant. étudiants yi ñu war faa taxawalit yenen tëralin ci walu codification ngir chambre étudiant yi liko waral dogal assemblée de l'université moy fitna yudul jeex yi boobaak léegi ñu ne ci biir université Chante Anta Diop dogal bi demb fitna geneen la fa duggal le mandat ne étudiants yi ci fipp gu reey lañ duggu les échos né ko UCAD kay demb comme lamb ju tas assemblée université bi tejlu campus bi kud né ko déet ndax amu ci compétence gi étudiants yi ñoom génn ci mbedd maag seeni doj ba noppi teg ca yàq lu ne recteur bu bees baag jëwriñ ji nu dénk njàng mu kawe mi wàllu politique ba tey ak ngiroo am ci waxtaan yi lu jëm ci app bi ngir local yi di élection gox-goxaat yi di lu nu jàngee ci Sud Quotidien source a ne ko échec beneen kay am na ci waxtaan yooyu ndax majorité bi lànkoon ci njëlbeen ñe lu jëm ci wàllu ak dogu ngir mu ne bu nu toxalee local it législative yi moom kenn du laal app ba majorité boobee moo nangoo signé FRN ñoom di Front National de Résistance daal di tëb lànk ñoom lanu gis daal ci gàttal mooy élection locale yi lañu bëgg mu am 2021 nu Njaay Siise njiital ONG 3D ba tey ak source aane opposition bi boo gisee mu taxawee ni day njort ñu nangu toxal locale yi bu ko defee mu doon it toxal geneen ci législative yi di watay député yi le témoin lu jëm ci jàppum àpp moomee ba tey ak jafe-jafeem ne baara yógoo gi ci boppam mooy wéy diggante majorité ak opposition bi Déthié fay coordonnateur pôle des non alignés le mu gis moom mooy manifester yëfi woon ci weeru mars moo waral opposition bi ñenn ci ñoom gis na yëfi daal ba mbiri xëccoo la doole waaye mu ne wares na nag dellu xel ku ne yàbbis lëf lu ko may su juboo amul dañuy xalal yoon wa président mu mujj dese nag toggal guy gi dogal la ko neex wàllu politique ba tey ak gis-gis bi Papa Samb Mboup am ci les échos ci ñuy wër di meeting di xumbaay yeneen fan yi yile mu ne àndu ca ndax benn yàqum xaalis la ba ca topp yooyey mumbaay du jur lu bari li ko gënalu new doxalin mu ne mooy ñu wuti ndaw yabal leen ci gox goxaani Sénégal ñu taataan tawati askan wi dalal leen bu ko defee dellu si yéegal yooyu tawataki jàmbat ci kaw kilifa gu mag gi di de la république ndakaaru la waxtaane ak ni mu gisee ni Barthélemy Dias moo ci atu bu mag bu Khalifa Ababacar Sall moo waral njàppale gi parrainé na ko mu ne jàpp ca loxo ba di defandoor ak moom dox mbokk gi ci commune yi ci kër yi ci marché yi ci grand place yi yéeni bi ne teyit am nañ ci ndigam jàppale bu Ousmane Sonko ngir ndakaaru ñu dem ci xolu ndakaaru ca pharmacie de la nation waxtaane pharmacie bi ci boppam ak site ba faak dogal bi ci cour suprême jël libération ne chambre administrative bu ëtt bu kayo boobee ci wàllu atte la nation association di pharmacie bu soxnas grand sëriñum ndakaaru Abdoulaye Mactar Diop yéene kaay bi ne dafa am ci mbiri lu leerul seen bopp ñoom ëtt bi waral aj gi enquête yéene kaay xëy waxtaane tey kilifa guy màndargaal lool jëmmal lool li nga xamante ni mooy baat bi di patriotisme bëgg sa réew fonk sa réew mu jaral la it le général Lamine Cissé ñuy amal tey am xew jëm ci sargaal ko moom kilifa gi waaye wolof njaay di wax ne bu ñu ne nit baax na laajal mbokk yi Fatou Cissé ci yéene kaay bi di doomam ne moom góor gi dafa ba mu ko daa woowee a savon de Marseille créole seen gamme Opalia ak Kabirex ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. mbokk yi jàngeen jëf xibaar yi buur na gën na ci fës amul kenn koo xam ne vaccin AstraZeneca rotal na sa bakkan di ay leexali ministère de la santé yokku ci ne daal ci jamono jile kenn xalaatul dakkal boobule vaccin ci mim réew. ay médicament yoo xam ne fraude la ñu teg leen loxo ca Padoa directeur bu médicament ca ministère de la santé professeur yerim Mbagnick Diop. ne xeex wi ngir jëlee fi ne moom euh, ngir jëlee fi ne mel moom moo daal des dafa des lool xeex wi te faw ñu xoolaat bu baax a baax loi bu jëm ci médicament yi ñu fi trafiqué ci mim réew. université bu Ndakaaru tension yi ba tey foofee ñàkk déggoo diggante euh, comité restreint bu assemblée bu université bi ak ñii di étudiants yi nag nekk ci bré euh, ci grève médiateur di kuy dox jàmm ca mm, foofu ci université bu Ndakaaru nag ne lu jëm ci codification yi faw ñu teg système bu bees néegi ñu jox ko ñi ko yellool mbokk jàngeen jëf mu nekkoon xibaar ci yaatal Seydina Rouba ci micro bi technique Aliou Ba ak Yacine Pouy léegi-léegi incha allah taarix Ramadan ak Nafissatou Sylla Nafissa ma ngi lay nuyu